moo dem saaku yi génn na saaku yi génn na saaku yi profil dem na aando profil dem na aando profil dem na aando aando may ma soow bi de mayewu soow bi de bétadine bi lay maye ak coton man ca ardo ba ñuy faj moom profil yaa ngi gis lan moo tax eh, yaa ngi gis lan moo tax andi coach ak ko andiwul coach duñ benn kan moo andiwul coach si ñoom ñaar mbër bi ne ardo andiwul coach gis nga dafa libre chaise am mooy profil waaw mooy profil andiwul gis nga lu waral loolu en général coach bi xëy na dafa dafa amul diplôme wala sinon dafa dafa renouvelé wul carte am mais gis nga ki ko champion la mu ngi wax ak moom parce que gis na faay yi ba pare instant yi corrigé na ko j'espère que bu dina def lu leer moo tax daal coach daal lu am solo la si laam. Ah, coach lu la si laam

coach ah? dafa mel ne am na coach coach na ku ci war a. dafa mel ne kii mooy coach bi waaw waaw non mooy coach bi mais chaise dañ ko ah. bàyyi pour mu ñëw assister point am mais xëy na moom dafa amul ñaar mooy am amul wala moo amul diplôme. Ah, waaw parce que léegi entraîneurs yi dañ leen bu baax parce que ñenn ñi am nañ premier degré am initiateur ba pare am comme préparateur physique diplôme. kon kon coach yi ñu déggandoo ko noonu du samay wax waxu coach la. waaw waxu coach la. <laughs> aja mbokk ta profil pare na daf na bëj ba ndeysaan li damay fàttali Eumeu Sène Gris Bordeaux Eumeu Sène ba mu jógee Adoni supporter yi jóg leen aca arbitre bi sifflé waat na combat bi daala ngay ne Gros ñi ngi noonu ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo bu nga koy demee wet waaye Talla Gaindé njool la Talla Gaindé Gros File nangootul xeex bi moom Gros File nangootul xeex bi dafa mel ne wër jàpp la bëgg Talla Gaindé Gros File nee na nga taxaw Talla Gaindé Gros File ngay noon di leewaato Talla Gaindé Gros File ndeysaan yaa ngi ba léegi ñu ci digg géew bi di leewaato ñoom ñaar songu amatul dóoru amatul dañuy leewaato arbitre bi lu xew avertissement verbal que doo taxaw benn place balaa ngay am avertissement Talla Gaindé Gros File Talla Gaindé Gros File bëggoon oh ki dafa bëgg a jàpp ki bëgg xeex bi dafa bëgg jàpp ki bëgg xeex bi Talla Gaindé Gros File jëlaat na ko xeex bi normalu ñi ngi xeex baa du kawoo ñi ngi xeex gauche droite génnaan na saako yi a na saako yi profil demaat na aado profil demaat na aado oh moo soxor ah waa gis nga man su sam man man du ma nekk waaw mbëru mbëru moo soxor chaque jour fi mu dóor bu dellusee foofu lay doggali ay millions lañ leen waaw waaw mais dëgg la ay kuwu million la mais ñi fayagooguñu million fayaguñu leen pour ñu xeex nañ leen fay pour ñu ah, bëree. Ah, mais xeex bi si la bokk kii bu amee tuuti réaction rek mën na daan kii parce que li muy xeex yëpp jaaru ci yoon. waaw mais kii tamit dafa mel ne moom jàpp la bëgg kee bëgg xeex bi. waaw mais mais mais mais ana entraîneur am li mu ko jàngal. Ah. boo àndee xeex war naa mën a am stratégie bu ma teg pour bëre ak yow. jàpp à chaque fois boo xoolee bu kii bëggee xeex moom day sëgg pour bëgg a jàpp mais ni muy duggee moo baaxul. ah waaw kon léegi na xoolaat dugginam ndax ndax ndax bu duggee dugg bu jaarul yoon la ko fay fekk moom mooy dóor mu daanu. day na de. waaw <laughs> ah, ëpp na ah, oh. kon combat bi jeex ku ci combat bi jeex na. Ah, waaw waaw mbër bi mënatul a bëre. xam nga général da ngay dégg ñu naan décision arbitre mais déclaration arbitre la ñuy wax ak décision ak ak déclaration médecin ak décision arbitre la ñuy wax waaw. dafa mel bëre ndax. waaw mënatul bëre chaque jour acte bi si kii lay jugee acte bi si si si euh, ardo lay jugee mais décision finale bi mu. combat de la soirée. Thiatou Fadam Thiatou Fadam mi ngi noonu di fecc mais Thiat ak Fils yëpp benn la. arbitre baa ngi leen di xool ñoom ñaar. coach sama maam nee na doomu mbër jàngil bëre yàgg yàgg des na la ñam. waaw loolu la loolu la sama maam waaye man sama maam dafa ne sa baay tegoon tànk boo demee ba teg fa tànk war a mën a sol la muy sol mu jot la lam defoon war nga kaa mën a def wala lu ko ëpp. mais jàpp ni kon dina ko def tey. moom boo ko gisee daanaka moom moo eh, ah, caatu faram la tuddoon mais léegi fii sa faram la andi tol na ni bàyyi mu ëpp ko mu ngi bëreeg nag ñu naan allemand mais boo xoolee ñoom ñaar seen euh, corpulence caatu faram moo gën a baax moo gën a baax taxaw moo gën a baax taxawaay physiquement boo ko xoolee dafa mel ni moo gën a pere. xëy doon conseil nan la na bëree moom si suuf rek si suuf ñaari njool la bu ma ko andi woon dama koy cadré loo waa ji euh, dama koy cadré loo mbër ko allemand bu ma ko cadré day daw ñëw jël si ma bu may jël si ñaar mooy am day dajeex sama hypercule wala ma sol dëbb ko sol bëree moom andiwaat bëre bi si suuf la ndax ñaari njool la daal. waaw. <laughs> aca mbokk yi Fils de Fadam ak Alma arbitre baa ngi wax ñoom nee leen coup sifflé moo leen di boole te moo leen di tàqale loolu mooy li làmb bañ ak li nangu laaj na ay juge ndax pare nañ ndeysaan aca mbokk yi arbitre sifflé na combat bi Alma am na lu lal Alma lim lal nii si suuf lal mu ne almaa lim lal nii si général dañu koy digal rek waaye gars yi en général tegtal yi ñu lay tegtal ay caaxaan la rek man sama ba may bëree ku ma mës a lii di jël naa ko sànni dox sa garde parce que sëriñ si ñoo ñu sonal ñun coach yi en tout cas mën a wax moom mooy kii caatu caatu faram dafa jógee si défaite bu ko teglewul dafa jógee si défaite kon am na beneen anam bu mu war a mën a bëree moo tax mu teey léetoo bi dib na ñoom ñaar boo xoolee waaw ñoo ngi leewaatoo waa à distance mais yàgg-yàgg rukum daje day am parce que fayu ñu leen pour ñu écarter wu di leetoo rek est-ce que. war nañ xeex. ankay war na xeex war naa mën a am mënta ñàkk bu sew bi faa mu ñëw. doon mu daan mun na ci mun naa am kom mun naa mais bu amee dina ma bett lool waaw parce que caat bëree la la andi tey ni ma ko gisee mu taxaw nii ñaari état de forme yi duñu benn caat moo gën a taxaw. caat moo gën a taxaw physiquement moo gën a taxaw te moo xaw a su tuuti. caat boo xoolee daanaka tafatin bu sotti la bu góorgóorloo. waaw loo tollee fii arbitre bi da leen di bëree da leen da di bëreloo parce que fayu ñu leen pour ñu taxaw gis nga li ma la waxoon jël na ko sànni xam na ne ay caaxaan la fi mu toll nii leetoo bi gën na gaaw gën na bar waaw. waaw ku muy bëree njool la te boo xoolee dafa mel ni bërekat la façon leewaa yu muy leewaatoo waaw façon leewaatoo bu muy leewaatoo daal boo ko xoolee daal. attention am na lu ci waaw dama suuf moo dugg si. si bët bi. en tout cas li li ma la bëgg a xawal daal moom mooy. sëriñ si dañuy nax rek. arbitre bi moo arbitré woon ki nga xam ne mooy Balla Gaye ak Yékini. ah arbitre bii la. arbitre bii la xanaa xanaa mi yóbbu si diggante bi ay ay lunette la takk de. ba mu dalee arbitré na ba tey day takk ay verre. ah waaw ndey ndeysaan. arbitre siflewaat na arbitre siflewaat na en tout cas ma la bëgg a xamal moom mooy. leetoo bi bu gënee gaaw combat bi mooy moo xam lépp Ami Collé moo fekkee démb fekkee tey dafa fekkee démb fekkee tey waa ba léegi ñoo ngi laatu waaw dem nañ ci saaku yi waa ji la ti bu na suuf raxasu waaw ba léegi nag caat mu ngi fixé benn côté rek waaw di ko xaar mu mu jóg parce que boo xoolee waajee bëre mbëru séeréer la mel caat sànni na benn coup waa loolu cokkaas waa waaw cokkaas sa mais fa dara ba léegi ñoo ngi laatoo waaw ba léegi ñoo ngi leeyaatoo ba léegi cat daal mu ngi ne mu ngi tekk saa ngi dóor ay coup mais coup mi dóor bugg ci dara waaw lancé waat na benn arrêt de gauche. est bu tuusee war na mën a génn ko tuusee war na mën a génn saako yi comme mën na ko sànni paqueté ko sànni ko. kii euh, non adversaire du cat bëggu lulul jàppante dégg nga lu ma la wax mbërëntaan la may nuroo cat léetoo bu muy léetoo léetoo bu jaar yoon lay léetoo si jàppante loxo bi mu may mu may xaw a niroo cat moo xaw a ëpp kàttan tuuti si biir jàppante loxo bi rek waaw daggaat nañ lay bi mel na luy arrière cat taxawat na samp. waaw waaw waaw waaw parce que si sa lamb dafa am bu muy toll boo xamante ne ku nekk ak sa coach li nga soxla rek la lay jox waaye li ma la mën a xamal daal moom mooy cat concentré wu na si lamb ji xam na si lu mu jugee waaw kii di allemand nag dëggal na boppam tamit ñoo ngi bëre. runkum daje daal boo amee gëm naa mu bañ a yàgg waaw. dañuy jël dañuy jël avertissement. jël faaw ñu jël samay wax waxu coach la. ndeysaan nee na ba mu ku mu maaseel jamono bàyyi nga ko xel. arbitre bi jox na leen avertissement. aca sifflé na combat bi. ñu ngi demaat ci ñoom ñaar. Fils de Fadam ñoom ñaar Fils de Fadam sànni na Alma arrière arrière droite la waaw loolu baax na. baax waaw li mu tànnee baax na noonu mais dafa dëgguwul ci moom quoi mais tamit di di di tëb bi laay bañ quoi loolu laa koy bañal saa su nekk waaw loolu dama foogoon ne benn mbër rek. ko dese da nga maîtriser Fils de Fils de dama ko xaw a maîtriser parce que xaw nañu mën a yàgg tuuti te man damaa yàgg si dama daan ma amateur laa woon dama doon wàcc tout le temps di seetaan si damay jaral kenn bëreewul. ma ñëw seetaan jamono bàyyi na la. non non man maa ngi sa ginnaaw xaw dara munu. acca ñu noonu ñoom ñaar. Fils Fadam. Fils Fadam wàcc na léegi. moo dem ak Alma Alma moo ñu wan ak ñoom ne na ngeen bëre bëre leen waaw mi-temps mi-temps faaw mu am mais ñoom ñaar bëree guñ dee. bëree guñ ay coup rek la. aco ginnaaw bi ñu jógee mi-temps ba ñëwaat. arbitre bi sifflé waat na combat bi ba tey si Fils de Fadam ak Malal. Alma ak Thiatou Fadam ba léegi ñoom ñaar fañ nekkoon lañ nekkaat ba a waaw fañ nekkoon lañ nekkaat ba léegi daanaka dañoo daggaat léegi bi rek ñëw. waaw instant mi taa nañ ba dellu si mais kii di Alma di jot na fee dem ah, ardo ñëwaat mais boo xoolee arrêt de gauche bu Thiatou Fadam baax na trop mais da koo gëmul. mais am ankay am na lu mun a wàññi si moom lu baree bëri parce que loolu lii mën na tax mu màmm bu màmmee nga mën a jël nga mën koo xaaj si suuf ba réex moom parce ñaari njool yu bëree la yàgg yàgg bu ñu rek day neex waaw. mais est-ce que waaw non gëm naa ne war nañoo mën a daje xanaa xanaa kay ñu dawante wala sinon avertissement yi dina bëri trop trop trop ah bu waa avertissement yi na bari parce que ku ci nekk am nga benn quoi waaw te si te bu ñu fàtte ne cinq minutes la ñuy bëree te cinq dafa gaaw waa li ma la mën a xamal léetoo bi mu ngi commencé gaaw gëm naa ne war naa mën a gaaw fi mu toll. war nañ ko mën a jeexal tànk yi. ko mën daje gëm naa mu jeex waa parce que ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañ caat andi na arrêté droite bu baax mais ba léegi des na koo gëm waaw gëmu ko waa te te mënoon naa dóor jëli ji parce que taxawaayam bi taxawaay kuy jëli ji la waa dóor na boobu dal na ba léegi ñu ngi leen waaw échangeante nañ ko cat jël na ko de jël na ko bu fatal sax waaw échangeante nañ ko ah làmb nag moom mbër balaa ñu laa xam balaa ñu laa xam dëgg nga jël ko ndax ku ku nekk daa am nu mu koy manifester ñii dañ koy manifester daw ñii dañ koy euh, manifester inconscient waaw saa cat dafa commencé may confiance adversaire am. te waru ko may confiance ci biir làmb bu ko mayee confiance pour mu daan ko day jafe lool lool lool. merci ñi ngi noonu ba léegi ñoom ñaar. arbitre baa ngi naan leen ñu bëre da ngeen a ñu fàttali leen tey journée Diender production la trop. jël na gu demal. jël na gu gu fa daal la jël waaw gu bu fa daal la jël. dafa war a dox si gardam dafa war a dox si gardam day demaat aar day demaat ardo dafa jël dafa jël arrêt gauche bu fatal. mais mbëri chaque jour réaction lañ dul am. parce que njool nga doon nga ko ku xam nga ne dara nekkatu fi mais ramassé ko da wax moom mais chaque jour xëy na tamit défaite bi mu jugee daxoy koy da koy ñàkkaloo confiance. waaw te boo xoolee arrêt bi mu doon nii moom tombé na fermé wul loxoom bu baax mun na cee jëlee sax gaañu gaañu bu paree. merci coach du samay nga xam ne mooy malal mi a ngi noonu ci aado bi waaye ki nga xam ne mooy fils de mala mu ngi bàkk bi sifflé waat na combat bi lan moo tax à chaque fois bu ñu léewaatoo rek malal ñëw ci waaw parce que saa euh, cat du nangu mu wër ko waaye da ko bëgg a wër mais waaye day fayu si bu la ma mayee cat instant eh, fi mu toll nii damay mel ne ku ko ragal daw jëliñu ko parce que war na ko mën a jëli te cat saa yu dóor rek waaw dalaat na xoolal gisoo. moom moo war a bëree fi mu toll nii xale bi jaarul yoon xoolal na ko kor na ko hypergil hypergil hypergil hypergil caat bul génn hypergil waaw demaat na ardo delloo loxo bi dafa delloo loxo bi fu mu jógee woon rek mu ngi bëree am na confiance fi mu toll nii mais na bëree waaw parce que waxuñu ku dóor ku daan la ñuy laaj combat bi mujjee xamante ni mooy malal ma ni cey aada bu fi amul woon mu ñaaw. ah aada bu fi amul woon mu ñaaw. waaw aada moom leneen la moom nee naa ko moom. ardo bii day joxe sow mais bii sow bu uteeg sow yi la ak meew sow bu xonk bi la din bi yaa may wax loolu ne. du samay wax de waxu Ami Collé la. ah Ami Collé mooy wax ardo. Ah, ardo daal xaw ma war nañu question mooy posé mooy ardo kan ma ko ardo. moo jaaxal ndax boo ko yóbboo mooy kaay fii ardo kaay fii ah, boo ko yóbboo si pël mooy kaar fii kaay fii te tey jii mën na jàpp bu gaañu bi war laa mën a wax kaay fii kaay fii la lay wax waaw <laughs> sifflé waat combat yooyu saa yi taf nañ ko taf bañ tafoon Eumeu Sène mais moom Eumeu la ah, moom ma jaaxal bu ma may caat nag fi mu toll dama koy jéem a génn géew bi parce que daanaka bëri nañ 7 minutes parce que dama xamul arbitre bi ba xam ko normal mais bëri nañ 5 minutes parce que 5 la ñu waroon bëre te daanaka li des ci bi bëreetul te bu doon ma may moom kii bëre ci lay andi dama koy njëkk ci bëre bi daan ko parce que lamb ji instant fi waaw moom moomee làmb ji waaw essage moom bu ko pertee na maa bett trop trop trop trop trop mais nag làmb moom dafa di loo xamante ne nii daal reenu ñambi la kenn xamul fu ne lay demee oh, waaw noonu la demee nag mais ba léegi mhm. à chaque day bëgg a ñëw doon tegtal gis nga li ma wax gis nga caat bu génnee du baax si moom caat bu génnee caat euh, jël na coup bu fatal léegi na fi mu toll nii adversaire am ma ko doon bañal adversaire moo ko am ah. moom dina am deux avertissement deux gis nga yaa ngi gis kee benn la am foog naa kee deux la am tamit su ma juumul parce que arbitre bi nii la yëkkatee loxoom xaw ma ba xam nag ku muy signalé deux la yëkkati mais kee moo am avantage des saa yi. te cat jot na jul coup bu fatal fii jël na arrêt droite bu garaaw fii nii. mooy waaw mooy li ma lay wax la Malaw moom daanaka ma ngay arro la dëkk fi mu toll nii mais cat si boppam xel la war a bëree combat bi ne woon naa la kii day ñëwaat pour xeex moom dafa war a ñëw pour bëree mais moom ñëwul pour bëree li ma andi doyul. andi na doole andi na lépp mais andiwul confiance. te confiance mooy mbër. Mm. merci arbitre sifflé waat na combat bi. waaw arbitre sifflé waat na. caat moom bu la mënee moom damay war fi mu toll nii damay war. damay war du ma bëggee fayee ko xoolal jeex na da jëli ji. caat jël na door na hypercule saa mu ngi wut fu mu jàpp mais caat dañuy door. waaw ba léegi xeex bi fi mu toll nii ñoo ngi soog a jàppante caat fekk na. fàq na rof ci xabal jeex na jeex na nee naa la li ma lii la waroon a def maanaam combat kenn du ko yéexantul combat kenn du ko yéexantal door na ko yóbbu nga ko ardo ñaari yoon ñetti yoon mais li des mooy ñëwal nga bëre mën na def na doomu mbër jàngil bëre yàgg yàgg des na la ñam des na la ñam ñaari xale yaa ngi noonu si digg géew bi arbitre bi sifflé na combat bi ndeysaan Pape Pouye ak Thiatou Walo ndeysaan mi ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu di leewaatoo ñoom ñaar Pape Pouye ak Thiatou Walo Thiatou Walo ak Pape saan Pape ñaar ñu ngi leewtoo ñoom ñaar ndeysaan papuy ak caatu waalo attention caatu waalo ak papuy ñaari xale yaa ngi lewtoo ñoom ñaar ndeysaan songo amagul kurpañ dalagul ñoom ñaar ba léegi ñu ngi si làng gi ku si nekk yaa ngi jéem a xool pexe booy naxee sa morom ba daan ko waaye ba léegi ñoom ñaar neewagul ñu runkum daje ñoom ñaar attention caatu waalo méb na Caatu Waalo ak Pape Pouye ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar benn benn ndeysaan Pape Pouye ak Caatu Waalo ñaari xale yaa ngi lewtoo ndeysaan Pape Pouye dafa mel ni dafa wàcc arbaarata na combat bi arbi nee na leen bëri leen arbi sufla waat na combat bi arbi sufla waat na ñoom ñaar Pape Yah Thiatou Walo Pape ndeysaan Walo door na léegi Pape door na ko koobu dal tañ ngay dégg dooral na door na xeex door na mu door ba attention ba xeex door mu daan do am na ko doon na ko bëgg a plaqué léegi mu bañ ndeysaan jàppante na ñoom ñaar roofoo nan jàppante na ñoom ñaar ku si nekk jàpp nga sa morom ak Pape yi ndeysaan ñoom ñaar ku si nekk jàpp nga ndeysaan Pape jàpp na Caatu Waalo jàpp na ndeysaan ku si nekk am nga ndox tubëre bu nekk si yow ndax kan mooy exploité wala déet ndeysaan bu ngi xeex dóor doon na ko bëgg a mu bañ ndeysaan Pape doon na ko bëgg a cabaxal léegi mu bañ waaye Caatu Waalo la ko waru ci ndeysaan ndeysaan waa Pouye jàpp na sa biir ngemb la waaye Caatu Waalo mi ngi dóor Caatu Waalo mi ngi doon dóor si suuf bu eh, fi nga xamante ni moom la jàpp mu nga jàpp sa biir ngemb sa gaño ko sa la jàpp moom Pape yi ndaysaan Caatu Waalo ak Pape yi Waalo nee naa ko bu def attention dina la jéem a jabaxal da noonu mu lay xëccee noonu ba matu bu la dóor dafay jabaxal di nga wéeru la ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar ndeysaan caatu waalo jàpp na waaye Pape Pouye tamit jàpp na ndeysaan caatu waalo jàpp na ko pare nekk sa biir ndengeeñ ko mu ngi noonu gis nga loxo boobu noonu mu jàpp si ginnaaw ndeysaan fu ñu jàppante am na solo ndeysaan ndeysaan ndaysaan fii technique bu ne war na war a mën a génn fii ndaysaan mu ngi koy dóor dóor na dóoraat na papu yi caat caat ndaysaan doon na ko bëgg a bëtt léegi mu bañ ndaysaan ñoom ñaar ku si nekk jàpp nga waaye ku si nekk yaa ngi jéem a xool pexe boo daana sa morom attention doon na ko bëgg a xar mu bañ ndaysaan doon na ko bëgg a xar léegi caat waalo ak papu ndeysaan Caatu caatuwalo ak Papuy ndeysaan Papuy ak Caatu Waalo Adu baa waxtaan ak ñoom ndeysaan Caatu Waalo jàpp na waaye Papuy tamit jàpp na waaye dafa mel ni Papuy dafa bàyyi loxo ba di dóor ndax dóor yooyu dóor ndax est-ce que war na baa doon jéem a xar da lay xar bëgg na ko xar léegi mu bañ taata waaye doon na bëgg a xar mu bañ waaye dóor na ko ay uppercut daal mu ngi koy dóor mu ngi dóor ci fàmb yi ndeysaan moom Papuy mu ngi dóor Papuy ak Waalo Caatu Waalo jàpp na si biir ngemb la waaye tamit jàpp na loxo gauche bi di dóor droite ba na ko mu rëpp ndeysaan kat ab am na wala amul arbitre lu xew arbitre àtte na leen arbitre lan moo xew arbitre ndeysaan arbitre sifle waat na combat Papouy ak ñoom ñaar jargandoo na loolu génn saako yi dellu si waat arbitre bi waa leen ne leen ñëw leen si digg géew bi ñoom ñaar benn benn waaye mbokk yi bu leen fàtte ne Papouy moo leen wan ginnaaw noonu waaye Caatu Waalo moom ngeen jàkkaaroon noonu mbokk yi ñaar xale yaa ngi noonu di damantay baaraam ñoom ñaar ndeysaan coono commencé naa dikk ndeysaan mu ngi noonu attention dóor na Caatu Papuy dóor ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi naxante ndeysaan arbitre bi arrêté na combat arbitre bi lu xew mu jugee ci armée bu ngewal daan ko jël bu rëy ñaar ñu ngi noonu ña ngay leewtoo baaw ka leewtoo ba gaaw na de

Farouz door na. ndeysaan jàpp na ko. laa ilaaha illallah. Cheikh Super Diamone ak Farouz. ñu ngi noonu ñoom ñaar. Cheikh Super Diamone ak Farouz. eh. eh ñu ngi eh. xeex ñu ngi xeex. Cheikh xar na ko mu daal di eh, eh. baax na. Cheikh Super Diamone mi ngi bëre. Cheikh Super Diamone mi ngi bëre. mi ngi bëre su jàppee day bëre. ndeysaan. Farouz ak Cheikh Super Jamono ñu ngi noonu ñoom ñaar ba tey Babacar. ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar sama yaram daw na. sama yaram daw na ndeysaan. Eh, eh. ñaari xale yaa ngi bëre bëre bu doy waar. ndeysaan. waaye lii laa bëgg ci laam. ñoom ñaar dañoo ne runkum daje rek commencé bëre. dañoo ne runkum daje bu ko defee ñëwee bëre ku si technique bopp. Cheikh bàyyi na fi mu dugaloon loxo bi. ndeysaan. ay champion na ndoxtu bëre day feeñ. gis nga mu ngi wutaan ngemb. ndeysaan. jàpp na si biir. Cheikh Super Jamono ak Farouz. Cheikh Super Jamono jàpp na si biir. ñu ngi noonu ñoom ñaar de. waaye Farouz tamit jàpp na Farouz gis nga mi ngi ràcc tànk yi bañ mu jàpp. bañ mu jàpp ndax bu Cheikh jàppee day liggéey. bu jàppee day liggéey gis nga. Cheikh Super Diamane ak Farouz ñu ngi noonu ñoom ñaar. ñoom ñaar Farouz. gis na Farouz mu ngi koy xëcc pour ko ci moom. waaw ndax Farouz jàpp na mais fi mu jàppoon baaxul mu bàyyi ko. di jàppaat feneen Farouz jàpp na de. ndeysaan waaye ci kuy saar bi la jàpp. ci kuy saar bi la jàpp. Cheikh daal di jàpp ci téere yi nga xamante ne mooy Farouz. ndeysaan Cheikh Super Diamane ak Farouz. jàpp nga taxaw Cheikh Super Diamano won la ginnaaw Farouz nga jàkkaar lool. ndeysaan mu ngi noonu. Cheikh Super Diamano ak Farouz. ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañu. fi mel ni ndox tu bu ne war naa war a mën a génn. waaw na war a mën a génn. waaw fii. muus. fii fii lépp mën na fee mën a. ndeysaan mu bañ moom Farouz. Farouz ngi wut ngemb de. Forus jàpp na. Forus jàpp na ba mu dëgër. Forus actuellement nii fu gën a baax lay lay bëgg la bëgg. fi mu ne da koo bëgg a jekkal bu jàppee fi fii baaxul mu jàppaat feneen. mais luy problème bi nam takkee ngembali ñoom takkee ngemb li ñuy def seen ngemb moo ma jaaxal day wow koŋ léeg-léeg xam nga lan la ñuy jël ah. li nga xamante ne mooy kol laa ilaaha illallaah daal di koy wëral ci ngemb ba dëgër kolax ba mu wow daal di ci teg benn morso ay pexe la fàq na ko ci suuf Cheikh na ko mu rëpp fàq na ko mu daal di rëpp ci suuf ndeysaan tey Cheikh Super Jamono ndaanaan la ndeysaan nee na matu cey bis bu ma màggee oh. bis bu sama dalee ci làmb laa ne ma ndeysaan daa amoon lu mu manqué woon ci làmb dama koy dabuwaat ci làmb ndeysaan kon muy ñaari xale yoo xamante ne tey képp ku ci daanu doo démérité doo démérité ndax ku ci daan moromam ma war na laa mën daan dëgg la Cheikh Super ak Farouz ñu ngi noonu ñoom ñaar ndeysaan ku si yaa ngi jéem a xool kele booy def sa morom ku si nekk jàpp nga Farouz jàpp na Cheikh Super Diamane jàpp na ndeysaan ku si am nga ngemb waaye Farouz loxo nga xamante ne mooy Cheikh Super Diamano nag léegi rucc na loxo boobu noonu léegi nag loxo boobu nag dina mën a dóor dina mën a def dara ndeysaan ndeysaan mi ngi noonu ndeysaan ñu ngi bëre ñoom ñaar ñu ngi bëre ndeysaan ñoom ñaar ndeysaan Feu Rouge ak Cheikh Super Diamano eh, ndeysaan ñu ngi bëre bëre bu metti si suuf ndeysaan nit ñi def coow lu bari moo tax signature bëgg daan waaw fa waaw faaw jël lamb signature contrat bu ñu naan sa waaye arbitre ñu ngi bëre baal xale koy jeexal entraînement moo koy jeexal entraînement mooy jeexal lamb mu ngi noonu bu xoolee ñaari xale yi indi na bu baax liggéey nañ waaye ku sëpp entraînement rek. waaw ndeysaan mu mën laa jëriñ yaay gagné combat bi. ay tamit ñu noonu Cheikh a ngi arrière. waaw Cheikh mi ngi arrière bëgg a dem si saako yi. ña ngay lewtoo. waaye Forus da koo ñeme sa koro xamante ne attention Forus door na. Forus door na de. fiile na ko Cheikh Cheikh Super Jamono fiile na ko léegi. Cheikh Super Jamono ak Forus. da koo fiile léegi. bañ waaye waaye Forus dafa bañ. ndeysaan. Cheikh ak Babacar combat bi neex na. ta bi neex na te métti ñoom ñaar. combat bi neex na lan lañ waxoon ba. 5 minutes mat gaaw na trop gaaw na de dañoo bëri xale yaram a tàng. suñu tàng. posal laa ilaaha illallah. ak nga xamante ne moom mooy Cheikh Super Diamono. ñu ngi noonu ñoom ñaar. ñu ngi demante baaraam bàyyi ndeysaan seex meb na léegi waaye demul. meb na waaye demul. attention sànni na léegi mais dalul. ndeysaan ña ngay leewtoo de ñoom ñaar ba tey ci biir géew gi ndeysaan ñu ngi leewtoo benn benn Cheikh Super Diamono ak Farouz Cheikh ya Cheikh ndeysaan moo ëpp avantage demal loo am jël ndeysaan bu ñu xoolee Cheikh Super Diamono taxawaay bi mu taxaw taxawaayu dem la gis nga li ma na gis nga sànni na léegi waaye dalul ndeysaan sànni na léegi

ndeysaan mu ngay génn Cheikh da lay génne Cheikh Cheikh génn bi yomb na si moom lool Cheikh Super Diamano génn bi yomb na si moom lool mbaa doo jëlaat avertissement day jëlaat avertissement ndeysaan ndeysaan mu ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu nee naa léegi seen léegi cinq minutes yi jeex ndeysaan Faurouz ak Cheikh Super Diamono ndeysaan ñaari xale yaa ngi léewtoo waaye Cheikh Super Diamono am na ñaari avertissement am na ñaari avertissement te lamb ji mu jeex te lamb ji léegi mu jeex bu ko neexee dem day taxaw day taxaw oh. temps ba jeex oxo arbitre lan moo xew daaw bi jeex na bu jeexee ni Feu Rouge dana jox victoire bi ndeysaan am na ndam si kaw Cheikh Super Diamono ndeysaan xaaral ñu ko woon ni waaye xeex nan bëre nan mi mu ngi noonu juliloo ko ko suba juliloo ko ndeysaan cey Feu mi mu ngi noonu doomu jàmm si kàmbaaw ndeysaan waa kër jëm ngi noonu waa kër général ngi noonu yëngal waa Kayaar yaa ngi noonu ndeysaan mi ngi noonu Hormatou grand grand combat la yor wala lan. tama la yor tama. waa général Malika lan la yor nii. tama la eh, yor eh ma ngay rong dondong no rong dondong rong. bu ngay dëgg waaye na ma koo fecc na ko ca rong rong rong. eh. ndeysaan jërëjëf Thierry. mi ngi borom Kayar noonu dox di dem. yor na benn butéel. ndeysaan am na lu ñu bindal noonu si suuf moom jam ndaysaan amaloon kay bindal noonu di ko xool ndaysaan mu ngi noonu jëlal amaloon kay bindal noonu moom jam tiiri di si dox di si jéggi di si dem ndaysaan suuka mbay baa ngi noonu mu ngi bind ay affaire di bind di def ay ay affaire am waaye ki nga xamante ni nii moom mooy général am na ay picc yu muy sànni noonu moom général di ko sànni ndeysaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg ndeysaan Sénégal lii la xam jàmm bu ñu gisee saar bi nu mu feesee moo la wàññi leen Sénégal jàmm la laaj ndeysaan mi ngi noonu arbitre nee na jeex na xëppoo bi doy na ñëw leen ndeysaan mi noonu waaye gis nga général nga xamante ne nii moom mooy ki nga xam ni mooy ndaar doomi Kayaar bi ndeysaan jëlama écarte bi ndeysaan jëlama ndaali jëlama ndaa loolu soo paree nga dellu ci général Malika ndeysaan général Malika ndeysaan ndaar bi la yor di sangoo mu ngi noonu de lan la yor noonu lii lan la melikaan wala ndaysaan ñawalee ñawalee góori njulli. ndaysaan njulli. mbootu. mbootu ak a baax. ak a baax. doomu Malika bi. waaye mi ngi tase jandeer bi. moom jam téeri nee naa la lekk doo nelaw. doo nelaw général ne ko sa avance. Ah. ba ma ko lekkee jour ba ma tëddee ah. dama nelaw ba yandoor ba bitanti ma ma si est-ce di stratégie ah. mu ne matu xam nga ma maa jël champion bi Swiss League ma ne am na mu ne ma taseeg ay champion dajeeg ay ndaanaan dama bëgg fi ne nii lii teggeeku ma ndax 3 millions yeeg 2 2 millions 500 yi may dégg ci lutte simple bi dama cee war a kookoy général bu Malika waaye mu ngi dajeeg xale boo xam ne moom jam teeli Jamteeri mii Babacar. Jamteeri. de euh, saabu saison bu ñëwee. pour mu am avance sax la ci moom. ndax ay ñu bëri dañuy daw avance am. boo xoolee waroon naa dépassé am fii. waroon naa dépassé niveau def na lu man ay 23 combats 24 combats. waroon naa dépassé fii. ndax boo xoolee fii ay 23 combats 24 combats 25 combats. aasu ñoom Modou Lo la ak ñoom Balla Gaye bu lamb waxoon dëgg ba tey. foofu lay toll di ñaan ñooñu sens waaye général Malika mu prouvé li muy prouvé uh-huh. ñëw fii war a dajee ki nga xamante ne mooy jam ceeri combat boobu du yomb du yomb waaye gëm naa ne bu arbitre bi uh-huh. dañuy daje gaw ma xeex am ci uh-huh. gaw ma xeex am ci de bu arbitre sifflé dañuy daje ñoom ñaar bu dee ñu xeex du xeex bi du bari gaw ma xeex bi bari mais bu ñu dajee rek lamb ji neex. bu ñu jàppantee lamb ji neex. Zé nag boo xoolee boo yaakaaree ni lim sutee jam ceri bariwul. lim ko sutee bariwul. boo xoolee adversaire de taille lañ. Uh-huh. ay adversaire de taille waaye di félicité waa Jandeer. ci journée bi lu rëy bi neex na. Uh-huh. démb ba tey lamb yi fi am Babacar macha allah. waaye internet yi nee nañ. Ah. sama diwo ak yow lan la. <laughs> nee nañ sama diwo ak yow lan la. Oh, fu ne la ma nit di woowee ne ma Babacar ki nga man la kookoy doomi caaroy géej gi lu mu waxul ci làmb baaxul di yoog moom daf may neex dafa xam làmb te lépp wax téere la xam bëri waa jam ceeri am na mbuus bu mu jël sànni ko ci Malika waaye yor na ma jël ko sànniwal ko yor na daa day toj ndaal bi wala da koy delloowaat ndaal bi fu mu jëm ca teer wala toog gisee. xoolal lii bu bi jot na. nee na heure bi bi jot na. Fallou. Aziz Gueye na nee na bi jot na. Aziz Gueye nee na bi jot na. Ah, Aziz Gueye nee na heure bi jot na. nee na heure bi jot na ndeysaan. préparateur mystique bi ak ménager bi dàq nañ leen ma ngay dem fële heure bi jot na. heure bi jot na. kon yàgg na ndeysaan waaye ña nga xoolee Seer mu ngi mel ne luy napp xale bi nii. waaw mu ngi napp <laughs> am lu mu yëy yëy yàbbi ko ci loxo yi diw ko ci kanam gi diw ko ci dënd bi. lamb da koy topp. lamb dañ koy topp ruq ruqaat yeeg foofu ñu téléspectateur bi nga xam ne moom mooy seetaan. nee nee nañ ko nee na bare na de. arbitre nee na ko heure bi jot na. moom ndaa bi mu yor ma ngay arrière ak ndaa bi. ma ngay arrière ak ndaa bi. day toj ndoxali toj ko woy ah, na ko gars ma ngay wax ak coach bi de. dem na de. ma diwoon na ko xëppoon na ko de. xëppoon na ko de. nee na ko lan koy def dama koy toj wala dama koy delloo. dama koy toj wala dama koy delloo. mu ngi noonu moom tam céeri tey Kara sama caméraman bi kenn du moom. l'infatigable lu mu caméra wul baaxul l'infatigable naan la si réew mi. waaye cey Baye Mass. waay kenn du moom ci mim réew. sama jàmbaar ay waay du moom ci mim réew. Ndeysaan mu ngi noonu jama ngi noonu am na alu noonu mu ngi koy génnee si dem na de. naa dem na de. ngay génn ndaaba dem na de fu ndaaba jëm jandeer wala lan jandeer hehe joxe na ndaali dugaat ci biir géew bi moom jam tiir dafa ma ni pare na waaw waaw cey Babacar pare na cey arbitre bi sifflé oh, yaram daw na yar des génneen na ñëpp heure bi bu lamb jotee fii sama yaram day daw lu tax sama yaram di daw xarit du fi nekk mbokk du fi nekk am di jàmm du fi nekk yow ak sa si rek ak arbitre yi fii la lamb fii la ñuy xamee kan mooy góor nag hee bu ñu tëjee barrière yi xale yi nee nañ bu ñu tëjee barrière yi nga xamante ne ba si góor a koy bay bare na de bare ba sa protestant bi moom jam teeri si nan koy fompal noonu matu ñu ngi koy fompal suuf si de suuf see bari bu baree parce que lu tax dañuy bañ tey ji ñu dem ba àgg ñoom ñaar kii naan tax nga suuf kii naan taxoo suuf lépp lu ñuy def dañu bëgg mu leer te daa war a leer. loolu waral ñuy def loolu. général ñëw na de. jam teeri na de am na lu tibb de. waaw jam suuf ci suuf si. waaw sànni na ko sànni ko ginnaaw man général Malika. arbaa ngi wax ak ñoom. waaye arbaa ngi ñoom. li làmb nangu am li làmb bañ. ku resifle moo leen boole ku resifle moo leen tàqale. bu ma siflee amul matante amul gàccante waaye am na taw roofoo am na taw jàppante am na songante am na dóorante kurbeñ général Malika ñaan na taf ci dënd bi général pari nga jam ceeri mi ngi kàbbar kàbbar na nee pare na sax na nee naa la wur wa dem na kank waxi ma dem na ndenkaan ndeysaan arba sifle na ndeysaan lu waay doon jaay léegi mu lamb léegi mu lamb ndeysaan ñu ngi ci vingt heures six minutes vingt heures six minutes ndeysaan ci diggante général Malika ak jam ceeri ndeysaan ñoo ñaa ñu ngi demee si boori saaku yi ñu ànd ak jandeer events ña nga ca boori saaku ya de yeexe général Malika ngeen jàkkaarloo ñoo jege woon nañ waaw jege woon nañ lool nee naa la combat rapproché lañ ko bëgg a def combat rapproché jam ceeri woon leen ginnaaw général ngeen jàkkaar lool dara ngay jàkkaarloo. ña ngay leewtoo. amagul songo amagul. dara amagul. waaye jege nañ lool Babacar. jege nañ saaku yi. ah jege nañ saaku yi. ñaari xale yi. ay ca ñu ngi noonu ku nekk yaa ngi déglu sa morom. ah ku ci nekk yaa ngi déglu de ku mooy njëkk a dëgg lancé. waaw. li ma la wax nee naa la combat bi ba xeex. duñu xeex. kuy njëkk a dem lay nit di xaar. gars yi ba duñ ko mbapat. déedéet buñ ko mbapat bëre door lañ wax. yoon la ñu ñamante waaye xeex mën na ibbi bëre bi. waaw xeex mën naa ibbi bëre bi. mais ñu ngi damante baaraam. ña ngay damante baaraam de. général Malika. général Malika ak Jam Téeri. ak Jam Téeri ndeysaan ñoom ñaa ñu ngi lay dox attention. Jam Téeri ak général. ñaar ñamantana Diam Terry ak Général Malika Diam Terry ma ngay seere lamp taakay de attention Zé door na léegi attention ndax Général ndax ko bëgg a mu daanu wala déet ah, doy na waar ku boobu daloon musiba am de ah bu daloon musiba am bu ñëwaatee bu dalee ña ngay lew door de gis nga door na Diam Terry door na ko na Diam Terry door na eh Diam Terry ndeysaan dem téeri dóor na général ñoom ñaar ñu ngi xeex dóoral ma dóor xeex dóoral ma dóor dem téeri général attention dem téeri ak général ndeysaan dem téeri ak général ñu ngi xeex dóoral ma dóor a ya ilallah xale yaa ngi bëre dem téeri ak dóor général ak dóor dem téeri ba xeex do am laa ilaha illallah oxo laa ilaha illallah xale yaa ngi xeex di bëre waaw waaw wax bi saf na lii mooy bëre li may xeex ndeysaan mu koy bëgg a génne saako yi moom général mu koy xëcc mu koy xëcc pour mu ñëw ndeysaan taf na ko général bëgg na koo taf waaye jëm tiiri ba na jëm tiiri mu ngi génne saako yi jëm tiiri général daan na ko laa ilaaha illallah général daan na ko général daan na ko général daan na jëm tiiri jëlim sëriñ bi amul benn werante général daan na Boy Malika daga général daan na ki nga xamante ne nii moom mooy jëm tiiri oxo xalam malika baa ngi noonu daan na ko jël bu rëy bu amul werante laa ilaha illallah o oh, jam teeri jam teeri daanu na jama ngi noonu daanu na jëlama supporter yi o oh, jël na daan na ko jël bu rëy bu werante mbokk yi laa ilaha illallah général général defati na mbir général defati na mbir daan na ko jële bu rëy jële ma supporters yi ñu ngay yëngal ndeysaan